ginnaaw loolu ñoo leen di nuyu nuyu bi gën a tedd gën a sell gën a sakkan muy jàmmi yàlla ak yërmandeem yàlla nekk ci yéen di jiital ci nuyoo bi imam Bachir Fall di ko jox nuyoo bi mu wasaareel ñu ko ci kilifa diine yi ci réew mi ak kilifa aada yi ak képp koo xamante ni rek mu ñuy seetaan ci Ahmadiyya TV di leen nuyu bu baax a baax a baax di leen ziyaar rawatina suñu caméraman bi nga xam ni moo ñuy filmer macha allah ñoo ngi koy nuyu bu baax di ko ziyaar. di ni ñi nga xamne ne ñoo nekk ci prison yi di ñaan yalla yalla leen fa yalla genné té bu leen fa yalla genné yalla buñu defaat lu tax ñu dugg fa di ni ñi nga xamne ne ñoo nekk ci hôpital yi té e, tawat yobul leen fa yalla leen yàlla génne wa wéral leen mom mi nga xamne mo moo mën wéral képp ku tedd di ni tam ñi nga xamne ñu ci kër gi te tey sooxaale ay jangoro yalla leen yalla wéral wéral ñëpp def ci adina bi rawati na senegal gi ñu nek yalla fi yalla def jamm Eh, ndax jamm ci la lepp xaj ñu ñëwaat ak yeen ci suñu émission bi nga xamne mom lañ doon def ba tay tay nak ñu ñëwal leen ci fi nga xamne fa lañ yémon muy nan li tax ñu wara top suñu borom kër yi ah ndax xam nga ki nga xamne mom la la yalla booleel muy sa borom kër yalla daf la ci dik lo xamanteni ni digu ko ko ci mom ndax eh, yaronte bi sallallahu alaihi wasallam dafa wax ni Iza salatil mar'atu hamsaha wa samat syahraha wa hafizat farjaha wa ata'at zawjaha qila laha udhulil jannata min ayy abwabil jannati sit yang di selasa dafa wax ni soxna ci de bu julle juroom koram sam ak topun top karam, borom keuram adina Euh, nee na dañ koy ibbil bun buntu buntu àjjana yi juróom-ñaari buntu àjjana yi ni ko dugg ci bu ko neex xam nga mbokk yi àddina bii liñ fi indi mooy jaamu yàlla ut ay tuyaaba kon lépp loo xamante ni day tax suñu balance yiw diis rek war nañ cee gën a góorgóorlu te sëy bi bu fekkee xam nga niñ koy defee waajal sa bopp ba mu cay dugg ngir yéene bu rafet ndax yonent bi sallallahu alayhi wa sallam wax innamal a'maalu binniyaat jëf joo gis yéene bala yalla di fay nga xamni ni ci ne bërëb di ci dugg rek yow yaangi ngi ni man damay dem pour jaamu yalla so demé ngir jaamu yalla xam nga ni jaamu yalla yombul té bu boba la ca metti di ko muñ li nga xamanteni ni neex na ca di ko mëna euh, santé borom bi subhanahu wa taala te lolu kat muñ googu nga fay muñ moy tax yalla borom subhanahu wa taala may la njaboot gu barkeel waaye muñ googu nga fay muñ moy tax ëllëg yow ma borom bi subhaanahu wa taala ibbil la juróom-ñaari buntu àjjana yépp ñu ne yow yaay choisir bu la neex ci buntu àjjana yi nga dugg ca kon loolu moom mooy tax mëbët euh, euh, bi nga fay duggee dina tax loo fa gis rek di ko mën a muñ ndaxte ku ci nekk xam na ni borom bi subhaanahu wa taala dafa bëral jigéen ñi loxo ci kër yi ndax dangay gis borom kër boo xam ni moom mooy liggéey la jënd kër ga mooy liggéey la tabax kër ga mooy meuble kër ga mooy joxe dépense lépp waaye foo seen nit ki di fa dem rek soxna si ngay tëdd waaw ah, tey jii man fa ma dëkk ku fay ñëw da wax ni damay dem kër yaa Seydaa koñ bi foo taxaw rek nga ne kër yaa Seydaa rek ñu daal di lay daal di leen ni fee te fekkee euh, maanaam même boo fekkee bañ koy jënd yi tamit ah, mën naa am sa dara dugg ca léegi nag kon loolu la nga xamanteni ni teranga jodi la borom subhanahu wa taala defal soxna yi keur keur yi ni tuddu yépp bo bëggee feeñ ci koñ bi bo réeree rek tuddo soxna sa ni këram la jël kon moom lañu borom subhanahu wa taala di wax teeru yusuf ba nga xamanteni ni nii gem bu jigen ba mang koy sakku mo wax ni wa wa wa raawad wa raawadatuhu llatii fii an nafsihi manam ñoom moom daa jël kër ga askanale ko ki nga xamante ni nii mooy euh, Zulayqa nga xam ni moom moo nekkoon njaatiga bu jigéenu ki nga xam ni mooy Yuusuf kon nag loolu daf ñuy wane rek ni euh, borom bi subhaanahu wa taala kër yi ñun lañ ko jagleel kon la ca baax kër gi ku jigéen ki la ñuy wax kër goo dugg tey jii mu salte wala mu tilim ku jigéen ka la ñuy wax kër goo dugg mu désordonné ku jigéen ka la wax ndax kon ñun ñoo ëpp doole fuuf ci kër yi ñi nga xam ne ñoo ko jë jënd ba pare tabax ko waaye ñun tamit lañ diggal ci di digtal ci sëy yi tamit loo xamante ni ñoom digtaluñ ñoon ko ci moo tax nag borom subhaanahu wa taala di waxaat ni waqar na fii buyutikunna wala tabarajna tabarajal jaahiliyatil ula wa aqimna salata a atina zakata wa atina allaha wa rasula bu ñu nekkee ci kër yi borom subhaanahu wa taala nee na bu ñu toogee ci kër yi bu ñu génn di Eh, di di fu nek nga dem fa fu nek nga dem fa digeen du def kon bu mu dëkk kër yépp xam li ñuy añee xamna li ñuy rore xamna li ñuy ndékkee di baraj baraj fu nek nga dugg fa lool dañ koy téré soxna si nga xamanteni ni dafa bëgg nek nitu diiné wala dafa nek nitu diiné mu ni nak bo nekké ci kër yi tamit bu julli jotté na ngay julli waye na ngay wax sa njaboot tamit ñu jog julli ñu bare bare bu ñu julli jotté dañuy jog julli rek waye duñ wax sa njaboot ñu jog julli te soxna ci booy julli war nga war wax sa njabot jógal julli war nga julli ba nopi daal di ni ko ma ñaanal la bo pare nga talal ni ko ñaanal ma ndax da fay tam mom mu lay ñaanal ba bis bu la gisete bu la gisatulee continue di la ñaanal kon nak bu ñuy julli ci biir kër yi tamit war nañu jang naka la ñuy julle naka la ñuy julle ay faratay julli sunnay julli ak lepp lo xamne mu ngi aajo ci julli kon man comme limay wax rek dama nan jang tey jii bu nekkoon dañu góor a jigéen kan moo ci war a jàng kenn ki toog dama naa leen jigéen moo war a jàng ndax jigéen moo war a jàng moo war a xam diineem ndax moom mooy yar ay njabootam te moom mooy teg njabootam ci li nga xamante ni nii mooy siraatul mustaqim mu ne nag après nag ngeen di joxe azaka azaka na képp ku ko man war nga ko di ko génnee comme góor ñi yooyu yëpp ñu ne góor ñi ñoo ci tolloolu ci lépp loo xamante ni dañuy def lu baax ci mbirum diine nee na ngeen topp borom bi subhanahu wa taala topp yonent bi sallallahu alayhi wa sallam kon jigen dafa wara top boromam xam boromam lan lay diglé mu necca waye xam boromam lan la téré mu bayiko waye nak nag dafa wara top yenenbi yonent bi salallahu alayhi wa sallam xam yenenbi sallallahu alaihi wasallam lan la no taxoon mu don xeexal jigen ni lan motax bam dañé ba ci nit dundam muy wax ni da nga ragal yalla ci jigen ni lool yépp soxna ci war na xam war na def tamit mu nak euh mu waxaat ni na ngeen di jang alxuraan ci seen bir keur yi dañu di jang alxuraan ci seen biir keur yi kon lolu kenn ta bayyi sa keur mu melni armel mu melni armel ndax sa keur gi dañ ci war di jàng alxuraan dañ ci war di jàngal sa njabot gi alxuraan da nga leen ci wara xir xiir jang ndax keur bo xamni duñ ci mo bamel ñoo kon nak lolu yépp ci biir keur gi lañ koy defee te buñ koy def ànd ak di sel dama ni togg bi ni togg ah sax buñ ci ànd ak yéene bu sell jaamu yàlla lay doon fóot bi ñuy fóot ñu ci ànd ak yéene bu sell jaamu yàlla lay doon bale bi ñuy bale sax bu buñ ci ànd ak eh, yéene bu sell boo xam ne jaamu yàlla lañ ko tuddee jaamu yàlla lay doon kon buñ yaakaar ne dañuy nekk ci kër yi pour sonn pour sonn noonu rek wala ñoom góor ñi du ñu def dara ñun ñooy def lépp fekk borom bi subhaanahu wa taala mu ngi lay bindal ay tuyaaba ginnaaw bi nga xam ne am nga ci yéene bu sell lépp looy def ci kër gi rek ay tuyaaba moo la cay fekk te ëllëg yowmal xiyaam bu la ko borom subhaanahu wa taala fayee nga kontaan ndax àddina bi kat tuyaaba kese lañ fi ut tuyaaba kese lañ fi gën a njëkkalante tuyaaba kese lañ fi gën a baril ndax ña ñi nga xam ne ñoo nekk ci bàmmeel yi sax ñi nga tëdd di xaar te buñ leen indiwaatoon ci àddina dinañ liggéey ci tuyaaba lu baree baree bari ndax loo fa yóbbu foofa du doy bokk na ci li nga xamante ni moo war soxna si ci ay doomam ndax Euh, soxna si yàlla daf bu la dénkee njaboot njaboot nga borom bi subhaanahu wa bu fekkente ni nii daf laa boole ci ñi nga xam ne nii amuñu njabootu àddina say Sénégal comme niñ ko xamee say doomi frère mën nga leen a yore say doomu sœur bu boobaa yow itamit njaboot nga njaboot boobu nga xam ne moom nga yor ci sa biir kër war nga cee sàmmante ba nga xamante ni nii ëllëg si biir dinañ mel ñi nga xam ni noonu la borom bi subhaanahu wa taala bëgg ñu mel leen ci ab yar ndax euh, ku ñuy wax xaalisu Ibrahim day wax ci xasidaam bi tudd al ilm wal axlaaq al umm madrasa ida ahbabtaha ahbabta saiban tayib al araq nee na yaay école la école la boo xam ne buñ ko waajalee buñ ko préparé dañuy préparé peuple bu mucc ayib kon peuple bi moom moo ngi commencé ci kër yi nit ku nekk bu génnee këram daje ci mbedd mi loolu mooy peuple bi kon nag jigéen benn jigéen bu baax mën naa defar société bi yépp waaye benn jigéen bu yàqu mën naa yàq société bi yépp kon li tax nga nekk école nga xam ni nii da nga war a yore jikkoy école di former di yar di def loo xamante ni képp ku fa génnee rek ñu ñu joxoñ la ci nit ñu baax ñi loolu jigéen bu baax loolu lay jariñ te li la ci njëkk a war mooy sa njaboot njaboot bi nga xam ne borom subhanahu wa taala dénk na la ko te wax la yaa ayuha allazina amanu qu anfusakum wa ahlikum naara waquuduha annaasu walxijaara alayha malaikatun ilaazun sidaat laa yaasuuna allaha ma amarahum wa yafaluuna ma yumaruun borom bi subhaanahu wa taala dafa wax ni ee ne da ngeen di wax ni da ngeen a gëm yàlla nit ki nag bu juddoo nekk ab jullit wala nga dem nekk ab Eh, loolu moom ci buntu ba la maanaam dugg nga ci buntu buntu buntu islaam waaye li nga xam ne moo lay yéegal ba ñu wax ba ñu waxee yaay alazina amanu een eh, yéen gëm nga ne man ci laa bokk loolu yow jullit bi yow yaa koy def te loolu nag mooy il faut nga juróom benn ponki ngëm yi nga xam ni mooy tax nga egg ci egg ci eh, daairatul iman yow il faut yow yaa koy liggéey mooy il faut nga gëm yàlla il faut nga gëm yonent bi sallallahu alayhi wa sallam yàlla nag du ay wax la ju and ak jëf ak pass pass bu dëggu ba lepp lu yalla di santane nga def ko way lepp lu mi tere nga bayiko nga gëm yonent nga gëm ni yalla mo yónni yonent yépp mo jël yonent bi salaa salaam def ko mu nekk gën gi yonent mu nga gëm leen ñoom ñëpp comme yonent nga gëm li nga xamanteni ni moy ay téeréem borom xamni borom subhanahu wa taala wacce na ay téere ci yonent bu nekk ndax ku yónni nit da ko jox loo xam ne bu ñu egsee dinañ xam ne kii moo ko yónni nga gëm tamit li nga xam ne moom mooy euh, euh, ndogal bu neex ak bu naqari nga gëm euh, nga xam ni mooy ndogal bu neex bu naqari bu neexee nga xam ni borom bi da nga muñ nga sant waaye bu naqaree nga xam ni borom bi da nga waxtu waa ñuy def incha allah bii di ñëw dinañ continuer yéen ci ngëm-ngëm yooyu li ci jub ñu xam ne borom bi la. li ciy dëgg maa ngi jéggalu sama borom di leen jéggalu in uridu ila islam mustata'tu assalaamu alaykum wa rahmatullah